xayru boobu du xayru bii firi yiw xayru bii firi intérêt personnel bu taxawee nga gëlëm way bis bu nekk am lu ñu interpeller pour delloo si nu ci démb duma tàyyi di ko nettali damay wax ni la terre n'a jamais tremblé. La terre n'a jamais tremblé. Elle nous interpelle pour nous rappeler qu'il y a un Dieu que l'humanité semble oublier. L'océan déborde, le feu se propage, le ciel se détache de ses foudres, les rivières et les fleuves sortent de leur lit et l'homme s'engouffre dans son entêtement pour ne pas entendre pour ne pas entendre la voix du ciel qui l'interpelle en ces termes إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر lii moo yàq àdduna parce que kenn xamatul fooy teg sa tànk waaw ndax ndax tiit ndax jaaxle et mon grand maître mon guide Saint Cheikh Tidiane Sy m'a toujours dit si Dieu existe rien n'est perdu et si Dieu n'existe pas tout est remis en question est-ce que Dieu existe Dieu n'a jamais été un monstre. Wa Rahman, Rahim. wërsëg séentuwu ci ki ko gëm ak ki ko gëmul parce que moo jaboote ñépp ba tax buñu ci yàlla séddee ku tolni sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ko war a mën a dolli daraja buñ nu ca woyé ñu wuyu ci مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق